asalaamaaleykum waa Lu Xew TV maa ngi leen di nuyu di leen siyaare bu wér di def sama réaction ci série sénégalaise yi di gis nag instant bi série bi nga xam ne si moo di maîtresse d'un homme marié mu def buzz trop ci internet bi ñii di ko xam ne si ne sax waaye franchement li ci sama xalaat wax dëgg yàlla mooy vraiment. mbind bi am na solo trop li ñuy tourné ñu ngi lancé ay message leçon yu bëri mi ngi jàll ci sëy bi mais tamit dañoo war a xoolaat li ñuy fiyee wàññi yenn séquence yu ñaaw yi ndax dañoo war a suuraale xale yi koy si fura yooyu macha allah. wax dëgg yàlla loolu dafa mat a bàyyi xel bu baax mais tamit ma am lu ma ci répondre benn côté ci ñi nga xam ne si ne ñu koy kaas. dëgg la day ji ñu xoolaat li ñu si waaye yenn yi mën nañ fa bañ a yegg ak ñoom mën nañ leen def avertissement rek waaye waruñu nekk di yegg ak ñoom ci yenn yi naan bañ leen di jéem a def série bi baa leen daal sama gis-gis daal loolu waru ko kii ndax équipe technique bu doon marti fii sonn tourné benn série ñëw ñu koy ci yenn kii mën naa ñàkk daal ndax maro bi seen scénario si yëpp dafa normal ndax Sénégal fii bëri na ay technique yoo xam ne si ne macha allah am nañ ay acteurs am nañ ay actrices macha allah mais scénariste lañ li nga xam si ne moom la di rawee ay morom bi équipe technique mooy scénariste ak leen gën a normal côté boobu. ci équipe xam ne si moo di FN Pro équipe technique boobu doon na équipe technique boo xam ne kenn dootu ko fii ci Sénégal. day joxe lu am solo di jàllale lu am sens loo xam ne si jamono jii nit ñi ñu ngi koy siifal bu baax ba jamono ji sax ku siifal seen sénégalais dëgg-dëgg xam ne jamono ji ñoom avancé nañ ñoom tamit ñi di leen ñaanal yàlla suñu borom eggal leen lu kawe seen jort mais tamit di def avertissement yenn équipe ni yi pour ñu bàyyi yenn léebuwaale yi. pour kenn di jël micro-trottoir di waane moroom ku mel ne Pikini Production nga xam ne si ne jamono ji théâtre yi muy génne yu bees yi dañu am sens trop waaye leen mooy ca parfois day joxe micro-trottoir di léeb waane naan pot waa pot émali suuf naan mooy série bi jongalaate di wax façon wax ñaaw yoo xam si ne mën ci seen diggante ci seen journaliste yooyu noonu am loolu dañ ko war di bàyyi xel ndax ñoom ñëpp ñoo bokk Sénégal te wax dëgg yàlla boo seetee ba ca biir ñiy siiful série Marodi ñiy siiful ñiy siiful série di siiful yeneen yi daal li ci mën xew daal nay rafet na. yéen waa Lu Xew TV bu fekkee Marodi may nañ leen nopp may leen di ñaan koo posé na question bi Marodi TV ñoom lan la xaar ci dem Grand Théâtre National ndax équipe technique bi nga xam ne si moo di Soleil Levant. ñëpp gis nañ ne day dem grand théâtre normal di ko feesal te bu defee réaction bu baax jamono jii nii ñi nga xam ne si ne ñoo siiful di ci actuellement nii ñoo ëpp ñi nga xam ne si ne ñoo ngi siiful Soleil Levant ba pare nag di leen conseil ci leen di leen ñaan ñuy xoolaat li ñu joué bu baax affaire yi gën a am sens ba pare séquence yu ñaaw yi ñu wàññi ko te ñu suuraale ne nit day dee mais image am du dee nit day dee bàyyi fi image. te say image mën ngaa dund bay jëmmi jamono say sa njaboot di ko gis mu doon loo xam ne si ne vraiment day xaw a màgg te day metti trop te boobaa di nga bëgg mu supprimer ne lay daj ci internet bi moo tax lu nit war di suy ci série rek na ko war di bàyyi xel. waaw wasalaam loolu moo nekkoon sama commentaire day sant tamit waa Lu Xew fii di leen ñaan yàlla suñu borom tabaaraka wa taala jàppale leen ñoom tamit lépp fépp fu ñu bëggee egg rek ñu egg fa barkeb Cheikhul